xibaaru biti réew yi. dañu koy dooree ak Burkina Faso ñetti nit lañu fa faat ci ak coono amoon ci ba gànnaaru réew moom bi yéen a ca des ñu jot leen a faat ci anam bu ñaaw bu ñu sukkandikoo nag ci ay xibaar ña ngay xam ne nawee def ko ñaawteef yooyu ña nga dëkk ci commune bu Abinda te ba ñuy def ñaawteef googu bis bi nga xam ne nag ay bagage la defoon dañ kaa lakkaale gannaaw nag ba ñu jëlee xaalis ba fa nekkoon Sampol Pedoun mu yor jokkoo ga ci lépp loo xam ne jëm ci wàllu wér-gi-yaram ma ngay xam ne ne bari na ay nit ñoo xam ne yéen foofee ngir ñu amal seen ak liggéey waaye nag muy xam ne ne dafay jafe loola ngir ñu amal lu ni mel ci diggante ñaari wàll yi ñu dem ba Algérie ki nga xam ne nag moo jiite woon Sonatrach dàq nañ ko muy Abdelmoumene Ould Kaddour mu jiite woon nag këru pétrole gu mag googu xibaar ba nag tasaare na romb yi nag bokk na ca la ko sabab wàllu guerre bu na ko tegi daan ne ko doon def ngir kër googu nga xam ne nag jiite woon na ko na ci entreprise yi gën xam ne nag day indi wàllu koom-koom ca dëkk ba la liggéey ci ay doomu aadama takku lool bokk na ci tamit ci groupe pétrolier bi gën a mag ca réew ma jamono ji nag moom la ñu dàq am na ku ko wuutu ca réew ma ba RDC di république démocratique bu Congo ñetti weer te guvernement amul ca réew moo félicité si kër yi gannaaw ba nguur ga jugee ca yeneen loxo ñëw ci ay loxoom ba mu demee ca fa ñuy wax Kisangane digg na nag dina tabb ilimaana jëwin waaye tamit taxawal ak nguuram amoon na nag benn date bu leer bu mu joxee ñu bari nag la ñuy séntu ci moom ak laajte mooy ilimaana jëwin ja kan lay doon. ñu jeexalee ko ak Gabon jamono ji nag ay waxtaan tàmbali nañ ko ca diggante kuréelu syndicat yi ak ilimaana jëwriñ jëm mu nekk nag waxtaan boo xam ne solo sa bokk na ca naka la ñuy def ba ak diggante waaye nag waxtaan googee am na yeneen i ponk yuñ nas ngir waxtaane ko ci mooma ndaje bari na nag ay kuréel yoo xam ne nag teewoon nañ ndaje ma jërë ngeen jëf mbokk yi loolu indi loon ci xibaari bitim réew yi